bismillahi rahmaani rahim jërëjëf mbokki julli di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di sant bu baax di leen jottali nuyoo sëriñ Muntaxa moom itam mu di leen jottali nuyoo kilifa diine yi nga xam ne yëpp ñoo ngi moom ñoo seq njaboot gi te ñëpp nekk fi di sant yàlla bu baax ci yàlla def bés bii bi ñu defee bi ñu fi ñëwee ba léegi defe naa ne ñaare fii la ñuy tëjee bis bi di ñaan yàlla yàlla ñu ko fekkiwaat déwén maanaam di tëj di taxawal liggéey bi liggéey boo xam ne yéen yéen a ko def nu ñëw ngeen dugal ñu ci ba tey ñu war a euh, taxaw xoolaat nan lañuy ñuy laxasaayewaat ba yàlla def ñu fekkiwaat ko yàlla nañu ko fekkiwaat ndax xam ngeen bi ñu duggee ci réew mi dem nañ ci barab yu bare danaa ñëw ci nuyu kilifa yi yi nga xam ne ñëpp ñoo fi jël kàddu bu mu nuyoo sëñ Moussa nuyu sëñ Am Guèye ñoom. ak sëñ amet njaay ak sëñ Daam Gay ak mboolem daayira yi nga xam ne yépp ñoo jóge ci gox yi bokk ko ak yéen ak si ñu jóge sànq ci euh, nooru daare ni di dégg tamit ki fi teewal wasilatu rubox mooy Ahmed njaay ñoo ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel mboolem dëkk yi ñu jaarit ñu ngi leen di ndokkeel di leen sant bañ tàmbalee Genève ba ba dem Cagliari ba ci Catania mboolem dëkk yooyu yëpp nga xam ne jaar nañ fi xëy na dinañ ko gën a buñ teewee gën koo limu ndax mu bañ a gudd fenn fu ci nekk xam nañ ne liggéey a fa nekk te liggéey ba yenn a koy def waaye day mel na buñ ñëwee dafa nekk loo xam ne dañ koy am ni ko Ahma wax léegi mbégte am ci ak cofeel loolu ñu di ci sant yàlla bu baax dégg naa bu baax wax yu rafet yi ñu fi wax waaye eh, boo dee nit bu la gor ne yow waxee wax bu rafet boo dee nit da ngaa war a sëgg laxasaayuwaat waaye waroo sugg-suggi euh mas nañoo ànd yéen ñii defe naa bu ngeen ko fàttewul ci sëñ Cheikh Mati lay ma ne ko sëñ bi ñii nga gis ñu toog ñii sukk ñii boof ay wàlliyoo ngi ci boroomi xam-xam ngi ci boroomi juddoo ngi ci même sëñ Touba moo leen ko jaral te sëñ Touba yàlla da ko jaraloon loolu defe naa ni yéen nga fa woon kon ñun tam ndegam egguñu sax foofa ca moom loolu rek nekk ci yéen te saa bu ñëwee ngeen wane cofeel bu rëy te wóor nañu ne sëñ Tuubaa rek la loolu tamit ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ñaan rek ngeen ñaanal ñu bu fekkee jàpp ngeen ne lu ngeen luñ euh, euh, jàddaguñu fa ngeen di jëm yéen wala fa ngeen di dox di dem nu topp ci yéen ñu ba jaan wut as ñal suñu bopp ndax defe ne am nañ ci luñ ci fu ñu fa war a jaar muy rax ko yàlla nañ ci yàlla musal ci loolu kon ñi ngi gërëm ñëpp euh, jóge nañu foofu léegi ci kër ci ci Monza gis nañ liggéey ba bu baax te loolu mooy kenn ku ci nekk ci yéen bu doon sagoom tey mooy def loola ndax lii rekk wane na ko dajaloo ngeen di def te yàlla rekk tax diine tax bàyyi seen lépp bàyyi seen liggéey ñii di liggéey ci ci ci ay service ñii di liggéey ci ay commerce te bu waxtu wu jotee ngeen mel ne koo xam ne la la fi indi mooy lii rek la daje rek la te la fi indi ñu bari dañoo defoon wutum alal la kon kenn ku ne xam na lan mooy wutum alal ak lan mooy xam ko ak bëgg ko te danaa koy wax lu bari ne bëgg ko dafa bokkul ak xam ko bëgg ko mooy ki nga xam ne da koo def ab jëmukaay nga xam ne jàpp na ne bu xasee am alal rek àddinaam moom jeex na ci moom te bu ko xasee am xamal ne mu ngay soog a dugg nag musiba bu fekkee loola noonu rek la ko gisee waaye ki ko xam nag lu mu ci am lu mu bari bari bari bari du am jafe-jafe ci moom ndax day def lu mu ci dugal ak fu ci dara nekk fu dara nekk ak lu mu cay def rek ma ngi cay bàyyi tey ak ëllëg te loolu mooy nit ngeen nekk ci barab yi gis kilifa yi la te ñaari barab bu ñu dem danañ dem ci autorité kilifa yi ba démb rek ñu ngi woon fii ci ci ci Noara gisoon fa ay ay kilifa yu fa ñëw ak fépp fu ñu ci mës a dem liñ nuy wax rek mooy Sénégal sénégalais nit ñu baax lañu mais loolu naka koy koy mën xamee ci kuy ku xam yar nit ñu bokkul fu ñu jóge nekk ñoom bés bu set nga mën a maase te yow ngay lu luñu lu nekk ci nit mën a fexe ba jàpp ne ñooñu nit ñëpp ku ca bokk nit ku baax nga wala nit koo xam ne am nga qualité loolu am na lu ko lal mooy lii ngeen def jàpp lii ngeen def du perdre temps maanaam ñëw bàyyi seen lépp te yàlla rek a tax loolu moo leen li leen dajale mooy li leen may loolu mooy pas-pas ak gëm-gëm te bàyyi xel ëllëg Euh, ñun tamit loolu ñu wax rek la sëñ Touba ak mboolem ñi nga xam ne ñoo dekkoon ci ak jamonoom ñi ngi gërëm ñi fi nekk ñëpp ci kër yi fi nekk këri diine yi ndax loolu ngeen ñuy wax te loolu lañ xam ñun su ngeen ñu ko waxee woon loolu lañ xam dañuy wax nañu fii bu ngeen fi ñee nekkee amu leen kër ñëpp fi nekk lu ngeen di def yéen a koy bokk te loolu moo moo tax a jóg nit ñooñu ndax mbirum yàlla dafay mbir moo xam ne dafa moom rek moo ko xam te képp ku la ca am kum la ca bëgg a yamloo wala mu jàpp ne àgg na ca fenn fi kooku mu ngi lay bëgg a dugal ci loo xamul kon bu yàlla yabalee ay yonent yàlla lu ne mu mën a loon ko boppam bu ko neexoon ba mu nu sànnee ci àdduna bi nu tumuraanke fi lool bu ko neexoon mu bàyyi nu gën noo mu bàyyi noo rek muy talax talaxi ba fu nu yóbbu noo xam waaye bu nu lalalee diine lalal nu ay nit ndax yonent yi defu leen ay malaaka defu leen leneen ndax dafa doon wax ne bi bi ko ñenn ñi xamul doon wax ne ko teg noo yabalal malaaka wala teg noo yabal mën leen malaaka bu ma ko yabal ci malaaka laa ko yabal waaye comme ay nit ngeen nit laa leen yabala ndax nit moo mën a wax ak moroomum nitam waaye malaaka bu wàccoon defe naa wax ji lu sori loolu lépp li mu firndeel mooy yàlla danoo may loo xam ne mooy bàlliinu ci suñ sago dafa ne sax laa ikraha fi diin diine sax gëm-gëm sax ak nekk ci diine sax nee na forcé wu ma ci kenn te moon moom moon moom te lim nu ko tagal lépp bëgg nu mucc rek la kon su yàlla defee ngeen ñëw fii ni nga ko waxe ni ngeen ko waxe sànq diwut ay barab te barab yi ñu ngi ci gën di gën di ko gën di feddali kër yi du kër rek de wante dafa am lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu junju dafa am lu mu feeñal aussi ndax ñëpp ñëpp xam ngeen ne yéen yoru leen lu leen di mën a dal am amal lu leen di mën a jariñ sax seen seenu njabootu bopp kenn ku ci nekk xëy na kër gam bëgg wala nam ko bëggee amewu ko ne kon su ngeen di ñëw fii di daje di jël ay seen ñaari dërëm di ca dajale barab bi yoo xam ne yàlla rek a tax kon li leen koy def loo mooy dangeen a am lu ngeen taxaw loo xam ne bari nañ ñoo xam ne jàpp nañ ne buñ bu leen rëccee ñoo ko war a dabaatal mais yàlla xeebu leen ndax bu dee ay aw alal li ngeen di def ci alal mooy luy sax ba faw bu dee leneen bu dee bu dee gëm-gëm am ngeen fi loo xam ne fu ngeen ko wane kenn du xeeb diine te lislaam kenn du ko yar di ko foo ko dugal ñu xeeb la booba yow yaay yow lañ xeeb waaye diine moom ku ko dugal foo war a dugal ak waxee ko ne mu nam demee kenn du la xeeb te la ko laal mooy pas-pas mooy gëm-gëm ñu gëm kon ñu ngi leen di gërëm di leen xamal ne tamit li ngeen di def nu ngeen fexe ba gën a ànd surtout ndaw yi xale yi ñu ngi gërëm bu baax soxna yi tamit ndax daara yi ngeen di def di fi yar ay xale yi di bàyyi xale yi nii maa ngi koy wax ne xale yi ngeen di bàyyi ñu dem ko dikk wàññiwul dara ndax lu mu metti metti metti ëllëg danañ danañ bàyyi di du génn ci seen ci seen bopp mu mel ne kon nañu gën taxaw ci barab yi ndax barab yi dafa wax naa ko léegi laa ko doon wax léegi ne li mu firndeel mooy loo xam ne lislaam daf koo ñàkkoon ku xam taarix islaam xam ne lislaam amoon na doole fu bari te bu ko bu bu te ne ngëm ngaa nga ca kon nag fu nekk ci àddina la ndax lislaam yàlla moo ko moo ko sax moo ko moo moo moo ko jox mu diine yàlla na ko jox kon yàlla mënta jox lii ba noppi am lu mu cay def loo xam ne day lor doomu aadama mënul nekk kon nag nit mooy jël loo xam ne bu ko jëlee te jëriñoo ko nam ko or sax boo ko jëloon sànni ko ci ab sën nit mën na koo romb te du ko jariñoo kon li am solo mooy mbir mu nekk la nga ko jariñoo moo am solo kon lii ngeen def nekk fii di jariñu fexe ba taxaw téye seen bopp te loolu la ñu autorités di wax kon nag loolu na ko téye bu baax damay wax ne nit ki ndax léeg-léeg sax suñu mbokk yi xër lool tudd maam yu bari ma ne leen mais maam yi seen affaire la ñoom li ngeen di tagg ñoom ñoo def jaaroo la jooju mais ñun defuñu dara kon kay boo nee maam diw moo def lee dëgg la baax na xëy na nga nga mën cee def référence waaye dafa mel ne ñoom ñun loolu xasal la sax daanaka léeg-léeg léeg-léeg sax da koy xaw niru ah xam nga yéen ñi moo tax ma ne ñu dangereux lañu <laughs> ku leen wëttuwul <laughs> waaw ndaxte dëgg la référence baax na. wante nag référence su kese nga wax ko nit it bu xamee mën na cee bàyyi xel ci loolu waaye nag léeg-léegi nag nga wax ko nit it mu defe ne moo ko def sax far loolu moom ñun bokkuñu ci boobu affaire moom waaw euh, léegi sëñ Moutala Amar bi ñuy bëgg a julli dafa summi mbubam ma ma am ci lu ma ci fàttaliku léegi wallahi asim dama ñëw ci ko sëñ Saaliwu yàlla na yàlla doori leeram ma fekk ay kilifa yu bari ñu toog ci mbaar yi sëñ bi toog ba mujj mu génn wooma ma ñëw mu indi ñu indil ndab mu jëfandiku maa ngi moom rek de ma defal ko mu raxasu ndaka mu noppi ma jox ko sama mbubb mu di ci fomp man jox sama mbubb sëñ Saaliw lan mooy problème bi wallahi asim moo ko nettali yëguma ko sax moo ko nettali nit ma ne kon xëy na ñoom te lam ca teg sax bëgguma ko wax waaye maanaam nga xam ne wa libaasu taqwa dalika xayr Uh, uh, ya bani adama qad anzalna alaykum libaasan yuwaari sawaatikum wa riisan wa libaasu taqwa dalika xayr yàlla daf ne aadama gis ngeen ko du muy génn àjjana yorul dara te teraanga ju ne yàlla defal na ko fa da ko tere dara rek mu laal ko ma nekk ko loolu du ngor du jom waaw ndax nit lu yàlla ko toll na yàlla bu la teree lay jotaan nan lii bu ko laal kese nga laal ko kooku moom gor du ko def kon yàlla bu te looloon nu topp sax ba lu ne lu ci dugg mais nit ki kon yaadal daf ne ñetti mbubb moo am mbubb bi nga xam ne da koy sol ngir di ko euh, muure sa awra mën na nekk mbubb bu bu bu man loolu rek mën na nekkee mbubb bu riche maanaam mbubb boo xam ne bu rafet lay doon mais boobu bu ko jël pour poo ko réewoo ko da koy def ngir sante ko yàlla ndax boobu ñett yooyu yëpp nag bu ci amee taqwa moo koy lal moo tax nga jël sa mbubb mu nga jël sa mbubb jox ko kee lal ko fee fekk la ca biir mbubb moom da nga ko war a def bu fekkente ni tiitaroo ci ndax mbubb defe naa kenn tiitaroo lu ko léegi man mi li ma sol ak li ñëpp solo bokk géwél yi sax lañuy sol ñoo gën a ñoo gën a rafet suñu suñu suñu waaw kon libaasu taqwa moo am solo nit ki lépp lu muy def na ci dugal yàlla damay wax ne sunu borom dafa dafa yërëm doomu aadama daf ko suturaal moo tax ba nanu jéem a di ragal yàlla te di ko te di ko moytu te di ko tey tey moytu di ko amul dara lum loo xam ne lu lu lor lor rek a ca nekk lum nu lu nekk njariñ ca nekk damay wax ne suturaal na nit ci nit def na lu nekk def na njuumte benn yoon defante ko yàlla suturaal mu defante ko waaye léeg-léeg nga gis. ñu mu mel ne kon ni ñuy wax yàlla dafa am barrage barrière bu barrage bu wala rido bu mu def diggante nit ak moom ma ngi koy xool te nit mënu ko gis moom waaye dafa def diggante nit ak nit it daf ca def barrière daf ca def rido euh, rido boobu nag nit ki bu nekkee ci biirum néeg ba defee ne nit gisu ko muy def lu dul noona rideau loolee muy def rido boobu saa bu defee lu dul noona dana am lu ca xotteeku bu defaatee loolu mu xotteekuwaat yàlla su bàyyi ci noonu rek kenn du gis dara waaye bu ca saxee lépp xotteeku bu ko defee mu ne fànn dangay gis nit ku jekki-jekki ñu ne kii de def na loo xam ne nit ku ne naan lii de kenn mosu koo xam ci moom nit ku baax la te fekk euh, du njëkkeewu ko de yàgg na koo def waaye yàlla moo ko suturaaloon moo tax sax ci lu dul noona loolu moo tax ñu di ko ay moo tax nit ki lu mu mën a nekk bu jóom te amute nay na jéggalu te lu mu nekk mu jëm te kon nanu jéem a jaamu yàlla wax da ngeen am loo xam ne mooy baasu nit mooy gëm-gëm te gëm-gëm mësul yomb waaw yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma kunta tadri mal kitab wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha gëm-gëm maa la ko jox rek mais mënoo ko woon am ndax bu ñu gisee nit naka la nit toog yéen ñi ngeen toog ni gëm yàlla jël seen alal nangam nag am benn koo xam ne danaan yàlla sax ma detal amul wala nangam nag loolu mënta différence boobu mënta am ci diggante nit ak nit mënul nekk mais kon ni ko ki ko def bu mu ko bu mu bu mu ko jàmbate moo tax sëñ Tuubaa danaa wax ne du ma bañ nit ci lu dul weddi ga maanaam bu dee bañ ab yéefar kéefar ga lay bañ mais du bañ nit ki ndax nit ki doomu aadama la kon nag loolu mooy wane ne li la yàlla may ba nga gëm ko bu fekkente ne kee amul sens boobu yam ca fa nga ca war a yam rek loolu nag mooy moom ngeen jëfandikoo fii ndax bu ngeen fi ñëwoon di woote moo tax ñi nga xam ne ñëpp dañuy woote ci lislaam da ci forcé nit moo indi jafe-jafe naa fekk moo indi problème lislaam mooy wane loo xam ne bokkut ak li na ci sa biir te loolu mën naa juumloo ko ne kon nag na ngeen gën a am bu baax a baax ñu ngi leen di sant bu baax di xam ne kilifa yii fi nekk xale yi na ngeen góorgóorlu bu baax xale yi nga xam ne dangeen fii soog a ñëw bu ngeen ñëwee bu leen yàkkamti mag ñii fi nekk am na noo xam ne bu ñu doxe woon lii du fi am waaw wax ngeen ba tàyyi ne su ngeen fi ña fi njëkkoon bu ñu fi masaan nekk defe naa ne dañuy nëbbutu duñu am néeg buñ nekk fu nañu di fa dugg su ngeen demee ba ñu ngeen daan nëbbutu fa di leen fekk si di leen tagg far tey du ci seenu melo du ci seen alal du ci seen lenn kon jikko la ak loolu valeur boobu ngeen am nag bu leen ko kenn xañ kon loolu na ngeen ko téye bu baax te mooy gëm-gëm ak pas-pas ak nekk ànd ànd nekk benn barab yi tamit ngeen gën ko fonk barab yi du kër de du kër rek ëllëg la mbirum ëllëg la lool lool moo jëm damay fàttaliku moo tax li ngay li may wax lii rek mu nirul wax kii dama am ci Espagne bu ñu fay soog a ñëw dafa am nu mu demee woon ñu am luñ ca joxe man booba sax xaw ma xaw ma nu mu demee ma ñëw jóge ca stade ba ñëw ca kë hôtel bi ndaka ma toog rek am ci xale yu góor yu ñaari xale yu góor yu taxaw ñu ne ma ah ñii de dañoo tarle eh, ma xaw a sonn ma ne ah kon na ñëw benn xale bu góor nuyu ma rek jox benn téere moo ubbi ko rek yem ci sëñ Touba daan min ba di maakaadam te daaxu naasir yot xuli nii fa ma ne ah kon kon kon man heure ndokk man bi ma tiitaru sëñ Touba daf ne eh, nit ñi wax ji baax ji ñu lay wax nee na ñu koy wax moom te moom buñ ko waxee moo ko def nee na dem na ba di ko bëgg a dugal ci fiiru seytaane maanaam mu dem ba di ci bëgg a gis boppam moo tax kenn aayewul loolu waaye kiñ koy wax nag nag ko jàppe ab ab soññee loolu dara nekku ci waaye bu jàppee na mooma musiba mën na ca am yàlla na ci yàlla musal kon xale yi na góor góorgóorlu soxna yi tamit ngeen góor góorlu bu baax ñu ngi leen di sant bu baax gis nañ taxawaay gis nañu seen taxawaay ngeen di nekk ci seen wetu sëriñ yi loolu it na ngeen ko na ngeen ko téye bu baax dégg ngeen may wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax ci euh, nit ku nit ak ku muy denc qualité yañ ca wax te may wax na yañ ñett yañ ca ëpp du moom moo ko wax waaye daf ko ko dañ ko ko nettali mu dugal ca baat boo xam ne mooy baatu diine boobu baatu diine boobu mooy li nga xam ne moo mën a téye nit nit ki lu ngeen mën a ànd ànd bu fekkente ne diine lëkkalewu leen bu dee alal bu dee ab taar bu dee ab judd mujj ga du rafet kon nag na ngeen téye seen seen diggante ak ñoom ci lu baax xam seen bopp tamit jigéen dafa war a xam boppam bu ko kenn yàpp ci ay caaxaan su ngeen ko defee ñoom itam góor ñi tamit yërëm leen waaw ndax tamit yëf yi ñaar ñëpp boor bu ne ndax indi sa soxna fii tamit di ko xoolale leen li bu amee nga ne ko am nga bu amul nga ne ko loo foo jële lii tongal ko tong lu mu am nga bëgg ca am loolu itam góor gu jo am jom sax du ko def lépp lu nit am moom itam bu mu la wa am nag tàmbali di la diir mbaggit nag ndax la mu am loolu lépp dafa mën a nekk loo xam dafa mën a ñàkk waaye su ngeen àndee ci diine kenn ku ne gëm yàlla la ngeen ànd di yàlla rek jàmm rek moo ciy am te njaboot gi tamit jàmm rek moo leen di moo leen moo leen di dal kon ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm bu baax yàlla na yàlla def ñu fekkewaat ko déwén te ngeen xam ne ñun li ñu indi rek mooy liggéey la dama doon wax léegi laa koy waxaat fee rek ma ne bu ñuy ñëw dañ naan programme bi gudd na léeg-léeg ñu tiit ci ndax Sénégal dañ fay bari lu ñu luñ nekk lool waaye jàppoon nañ lañ fa nekk lu lii gënu ko te maanaam lu baax la de ndax fu ñu nekk ci ndaje njàng ak leen rek lañ nekk waaye bu may bëgg ñëw damay sonn lool ba naan ah sëñ Moussa tey ñoo xool nañu wàññi programme bi waaye bu mu ñëwee ba léegi ak fi ñu jaar yàlla seere na ne yëgaatuma ci dara kon léegi est-ce que man damay daal di bëgg a commencer nag di ci kon lu ma dugg ci lu ma xamul maanaam Euh, du ma du ma du ma ci rax du ma du ma ci ba tëdd sama kër feebar ba doon te bu ma ñëwee fii du ma feebar kon kay ma ñëw ci lii nga xam ne yaakaar naa ci dara ndax yéen koy liggéey te liggéey yéen ngeen ñu ci kon yàlla na leen yàlla fay képp ku fi ñëw rek yàlla yàlla faj sa aajo lépp lu fi indi ne ci soxla yàlla na ko yàlla faj ngeen xam ne nii rek la àddina amul solo àdduna ñi ngi gërëm bu baax na kilifa yëpp di gërëm bu baax consil bu moom itam ndeysaan nekku fi waaye biñ daataan ne boole nañu ak Mamor mu sonn loolu ndeysaan ak mboolem kii autorité yi nga xam ne dem nañ ci biir ci biir réew mi muy gouvernement Italie tamit ñu ngi koy sant bu baax ndax autorité yi fi nekk tamit wormaan nañu saa bu ñu demee xam nañ ne te lépp euh, yéen yéen a ko tax ndax bu ñu doon ñëw di fekk li ma doon wax rek keroog ne dem naa ci benn dëkk ci dëkk yi bëgguma ko tudd ma ne leen xale yi na ngeen góorlu bu ngeen ñëwee fi ñu naan leen bu ngeen jaayee dorog da ngeen am xaalis bu leen ci dugg ma ne ko kon am na ñi nekk ci dëkk bi dara umpu leen fi mu ne boolem ko fi nekk ci xam nañ la ndax yàlla moo leen ko may moo leen moo leen ci dimbal ndax dañ koy gëstu mën ngaa toog ci sa biir kër def na ci yow dara te fekk ne xam nañ ci loo xam ne sax xamuñu xamu leen ko man leen xale yi bu ngeen ñëw fii fekk mag ñi toog ngeen defee ne dañoo ñàkk fayda ba amuñu alal ju dul jeex seen ngor ak seen dignité ak seen diine moo leen fi bax kon su ngeen ñëwee topp leen ci ñoom ndax fii ngeen toog nii ñoom ñu xam lu bari ci yéen am na ci barab booba nag dañ ne loolu dafaa bari woon ma ne ko su ngeen toogee nii kat ñu gis leen ci biir man ma ne sugg nii toog dañ naan kii mooy seen chef jaay katu drogue kon nag da ngeen di dimbale rek bàyyi bàyyi ko kon na ngeen góorgóorlu bu baax ngeen a xool ci seen seen seen seen seen seen xool xool ci mag ñii fi nekk ñàkk ñu fayda te lii fi nekk tey ñoo ko fi def waaw ñoo ko fi def ñoo am seen fulla am seen dignité ak tey seen valeur ba tey ñu respecté leen ba ku nekk mën a dox nga ko génn kon ni ñuy gërëm xale yi tamit xale yu ndaw yi tamit nañ leen jéem a jàngal ci daara yi gis nañ bu baax yéen ngi ciy góorgóorlu da taxaw loolu tamit nañ ci seet nu ngeen ko organiser na ngeen fexe ba organiser wu tamit ci ay mbootaay yoo xam ne da ngeen ko day nekk loo xam ne état da koy da koy nangu ngeen xool ay nit yu ay conseil yu baax ñu sampal leen ay ay loo xam ne dana dëgër ba lu baree baree bare sax duut leen ci sonn te loolu lépp li koy waral mooy rek ngeen ngeen ngeen ànd bi kon yàlla na leen yàlla sàmm yàlla yàlla faj aju yi yàlla nañu ko fekke waat déwén te kenn bañ a manqué te xéewal yi gën a bari te barke seen Tuubaa ngeen gën a góor góor lu baax ñu xam ne jamono yi jë yëngu na mais liggéey leen rek te jàpp seen jàmbur waaw loolu la mooy loolu la dama naan dama naan ñun ulul amri ñun beneen affaire la ñun ay wax ju dégg la ak ñu déglu la bokkul de waaw waaw ku ñu déglu kenn rek ñenn rek lay war a doon accoor laa bu accoor rasul ulul amri boobu ulul amri boobu moom la yàlla wax ñu benn benn la ñuy doon koo xam ne bu ñu ko waxee ñu déglu ko même bu ñu ko deful ak dégg nag ku wax rek ñu déglu la maa ngi sëñ ak ñi ñëpp ku wax ñu dégg la mais déglu déglu mooy waral topp topp googu nag du yàlla ñëpp la ko la ko def teg kon nag ku ñu ku war a wax ñu doon déglu waxal rek bu ñu la déglu bu ñu la déggalu di nga wax rek ñu dégg la kon nag jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu mbooloo mi fu waay nekk na tàll loxoom te fas lu mu bëgg tey wax amin oto bii dañ ko war a eh, dara déplacé benn Mitsubishi le DG 188 RB dafa gaare ci buntu buy kàncoolo bi nañ ko déplacé ngir yàlla